ministère am di nga di nga ñu wax nday yi nu Moussa Fall gënee ci <laughs> ci généraux yi di ko wax ci Moussa Fall la ñafee ndeyam sànni ko ay tubaab ay tubaab ñaari israélien du moins ñaari israélien fekk ko ci magistère am mu nekk biir ndakaaru njaajal jóg ay israélien Idan Perez ak George euh, euh, euh, ak Idan Perez la famille Idan Perez ne ko katal sa ndey dem fële ñëw dëkk foofu ci magistère am xam ngeen ni loolu Jean Baptiste Tine bu toogoon foofu nga xam ni généraux yëpp fa lañ nekkoon biir ville en face euh, euh, lu mu tëddati euh, palais ba ak principal à côté yow lañ fa njëkk a ñàpp sa ndey yëkkati yaay doome xalam yow lañ fa njëkk a yëkkati yaa ñàpp sa ndey Moussa Fall Moussa Fall yaa ñàkk jom Moussa Fall yaa judd ci kilam kat sa ndey namp ci doome xaram mbaam ak xaj Gabi Perez Idan Perez ñoo ñaf ndey Moussa Fall génne ko foofu noonu fa nga xam ne généraux yëpp fa lañ nekkoon Moussa Fall ñu jëlee ko fa sànni ndeyam munu wax ay Gabi Presse ak Eden ñoom toog fa njaax teg fa seeni matériel si Moussa Fall laa mee yow di ñu wax ndey yow Pape Ndiaye foo ñu yamee ba ni Moussa Fall moo gën ci ci Moussa Fall la Macky Sall ci magistère am la Macky Sall rayee lu musul rey ci kaw suuf ci Moussa Fall <laughs> ci Moussa Fall la ji ab gendarme seeyal ko boobu ba léegi kenn mësu koy sotti ko aset ci Moussa Fall la ñu gisee ay gendarme yu ànd ak ay nervi ñuy tiire askan wi ci Moussa Fall la ñu gisee ab gendarme bu retraité ñu yokkal ko ay atam ci yokkal ko mu toog pour sale boulot ci Moussa Fall la ñu gisee mu rey ay nit ay gendarme am rey ay nit ànd ak ay nervi président bi woo ko félicité ko kon di ñuy wax ndey Moussa Fall lan la gënee yeneen généraux yi di ñu ko wax de doo demee noonu de cottu ndeyam Walf am na problème nag Walf moom am na problème moom dina dinañu wax foofu mu taxawee woon day digg ndakaaru ne xam na opposant yi dina fa taxawaat wax ñu opposant yi dina fa taxaw de fi nag am na problème moom du génne noonu de comme Walf ñoo ubbi seen i télé kooku ñëw Papa Ndiaye day nday di Walf ba mu fees dell yàq liggéey Sidi Lamine bi dina ñëwaat foofu mu toogoon wax ñu nan la Moussa Fall gënee gendarme yi fi jaar yëpp généraux yi fi jaar yëpp lan la ci magistère mussa Fall am te yeneen ñi amuñu ko lan la Moussa Fall liggéey loo xam ne ñoom liggéeyuñ ko lan moo am ci magistère am te amul ci ñeneen ñi loolu lépp di ñu ko leer te di ñuy wax nag opposant yi nga xam ni ñoo financé gaal yi ñu dem nga génn preuve yi tegal ñu ko danga nga waajal de di nga fi génn de fii moom munoo fee nee nga it xam nga ñu financé booy yi les soi-disant euh, euh, terroristes ñi leen doon jox xaalisu cocktail molotov jariñu kat sa day te da nga doon yeeru yow billaahi dangaa dangaa dëgg liggéey Papa Ndiaye daa dëgg liggéey de dëgg na liggéey jàmbur de gars yi ndànk rek nañ waxtaan Papa Ndiaye dëgg na liggéey jàmbur billaahi Papa Ndiaye na ko ay waajuram daw jëli wutal koy ñaan <laughs> dëgg na liggéey jàmbur de yàqu na de Papa Ndiaye yàqu na de Papa Ndiaye kat ndeyam waxu Papa Ndiaye wujji eh, eh, yaayam yàq na ko oh wujji yaay Papa Ndiaye yàq na Papa Ndiaye wujji yaay Papa Ndiaye yàq na Papa Ndiaye ay Papa Ndiaye yàqu na waay ay waay Papa Ndiaye yàqu na ay waay Papa Ndiaye na waay ay hmm? hmm? hmm? ay Papa Ndiaye yàqu na waay Papa Ndiaye nee nga yow xam nga ñu doon financé ces soi-disant fameux terroriste ñi leen doon jox xaalis bi ñu jënd cocktail molotov nga ne xam nga leen kaay tudd tudd dinañ kat fii rek la kat kattee sa day nag sa yaay yàq na la sa sa wujju yaa yàq na la dëkk nga dayu dëmm sa wujju yaa yàq na la nag tey di nga ñu wax nday ñan la seen tur yi nga génne ko tey rek la ñuy katt sa day yow doo rëcc opposant yi da ngay ñëw duulal leen ñu génn ñepp sa day ci kaso bi parce que di nga génne preuve waxuma la nag nga ne ak ah, xam nga nit yi nga xam ni ñoo doon jox booy yi ñuy jënd ay cocktail molotov boo tuddee tur rek di nga génne preuve di nga génne envoi d'argent bi këyit bi ak ñaata la ak nan la ko ko joxe ak est-ce que nan la kooku jëndee cocktail molotov ak fan la jëndee cocktail molotov lépp di ko génne déggoo ma de parce que boo nee Mollah Morgun moo joxe ñu jënd cocktail molotov da nga naan Mollah Morgun porte plainte da nga naan xaaral nga génn kayit yi Mollah Morgun envoyé d'argent nga indi ko muy ay Wave wala ay Wari nga wanewaat encore nit waa ji bu mu ko jëlee fan la jëndee cocktail yi molotov yi nu mu ko jëndee nga dem ci jaaykatu butéel bi mu génnal la facture ne kii jënd na fi cent butéel vide ñu jëlaat nga indiwaat facture essence bi kooku demaat encore ñu ne kii jënd na fii cinquante litres d'essence ñu demaat ci jaakatu buum bi ñu ne kii moom ci boppam mu jëloon fële xaalis bi jënd na ci lii bouteille facture baa ngi nii xaalis bi mi ngi nii facture euh, buum yaa ngi nii facture bouteille yaa ngi nii vite yi facture essence baa ngi nii tey rek ñu kat sanday papa Ndiaye <laughs> waaye dangaa mën a duur rek xam nga Sénégal dañuy jaay ginaar ba yu mbëkk papa Ndiaye comme ñu ay papa Ndiaye enquêteur la Papa Ndiaye génn Papa Ndiaye mel woon nii moo tax maa ngi woo yaayu Papa Ndiaye ak baayu Papa Ndiaye bu dee ñu ngi ak i mbokk Papa Ndiaye ñu rawale Papa Ndiaye yóbbu ko côté Casamance wala ñu yóbbu ko le plus rapidement possible sànq ko génne li nekk ci moom am na lu nekk ci moom yaay wujji yaayam liggéey na Papa Ndiaye boo xoolee ci wujji yaayam yi Papa Ndiaye liggéey nañ ko wala mu dëgg liggéey jàmbur parce que Papa Ndiaye mel woon nii xëy rek yàqu yàqu ni commencé di ñëw gis ab assassin ne kii moo gën ci nit yi ñu waxati mu ne moom xam na ay nit yi nga xam ne ñoo doon joxe xaalisu cocktail molotov yor na preuve yi ñuy waxati mu ne moom xam na opposition bi yóbbu booy yi ci gaal te rek ba <laughs> waay non bu leen ko gaaw a dóor xaaral sama sénégalais maa bu leen gaaw a dóorugum Papa Ndiaye ngir yàlla il est atteint mystiquement il est atteint man je pense qu'il est am na lu ko dugg soit wujju yaayam a ko xërëm mu tàggoog sagom di wax waxi dof soit daa dëgg liggéey jàmbur mais balaa ñoo tegal ndayam nag nañ ko may temps ñu woo ay mbokkam le plus rapidement possible ñu récupérer Papa yóbbu ko ci xàmb yi sang ko liggéey lijjanti ko ba dindi loolu bu ñu ñëwee wax ak ñun xëy nañ bu topp Papa Ndiaye toogaatee dina wax leneen mais pour l'instant bu leen ko dóor bàyyeegum ko noonu talaguñ ko le 17 en attendant di wax mbokkam yi fii ak le 17 boo leen mënee récupérer Papa Ndiaye le plus rapidement possible yéen mbokkam yi ngeen récupérer ko yóbbu ko defal ko ay càngat suuru ko dëmm bi génn dëmm bu nekk ci moom wala xërëm gi lu ko wujj yaayam laal wala jàpp na jàpp na na jàpp na parce que Papa Ndiaye googu ñu doon gis doon bu ñëwee di taxawee nii di duuli duuli flagrant bay wax ay xam naa xam naa yàlla nu mu bindee yonent bi xam naa ko lu ma wóor la dama ko xam ban xalima la yàlla bindee yonent bi sallallahu alayhi wa ba mu nekk gën di mbindeef mais am na sax ku ko gën mais kooku moo gën yonent bi mais nag bind nañu ko ci alxuraan fen yooyu la Papa Ndiaye fen ci xam naa lu yonent bi ñi mu àndaloon doon xeex ñi nga xam ni moom mooy cent trois cent treize ñëpp combattant yooyu xam naa ku leen doon financé ki leen jox xaalis bi mun naa non Papa Ndiaye nag Papa Ndiaye nag day na nday di ko Dakar nag da ngaa a dul rek da nga doon tey nag yow yëpp <laughs> ay waay la dugal Papa Ndiaye ci lii ay waay Papa Ndiaye yàqu na waaye ay waay Papa Ndiaye yàqu na waaye xaaral ma ñëw dem sama marché bi man ay waay Papa Ndiaye yàqu na waaye hmm? hmm? ay waay Papa Ndiaye yàqu na waaye ndeysaan tey àdduna gars yi dañ leen di yàq rek dañ leen di yàq ay waay Papa Ndiaye yàqu na waaye géré leen ko dafa tiit dafa tiit mbokk yi géré leen Papa Ndiaye dafa tiit billahi géré leen ko oh dafa jabati dafa jabati dafa tiit oh oh billahi eh Papa Ndiaye du yàq na Ndakaaru day na Ndakaaru Papa Ndiaye ku la jox info yi Kalidou daa voyage Papa Ndiaye ku la jox info yi hmm. non dinañ ko gérer Papa Ndiaye naka say mbokk gérer naka say mbokk gérer ah day doy waar kay ah dina la yóbbu dig de ndax li nga wax moom dina li nga wax moom di nga génne bref yi moom foofu day doy waar mais di ko génne de dig moom dañ la fa yóbbu moom day doy waar nag di nga di nay bref yi moom di ko génne di nga visité ay nit moom da nga mën a dul rek foofu day doy waar mais di nga génne de baa ba ñu yegg rek baa ba le 17 après le 17 si ah c'est vrai waaw du mën a duul. amul nu muy demee Papa Ndiaye Papa Ndiaye amul lenn nu muy demee di nga ñu wax nday tur yi Papa Ndiaye di nga fi wax nday tur yi Papa Ndiaye di nga fi wax tur yi amul nu muy demee day doy waar mi dinañ yóbbu sa nday dëkk tax di nga fi tuddi tur tur moom ni ko fi tudd moom génn ay preuve da nga mën a duul rek tey rek nga yàpp yaa nga doon yeeru yàpp nga eh, wax ñu foo jëlee information yi bul siwal sa bopp wax ñu foo jëlee information yooyu ak preuve yi. Njaay Njaay wax ñu nga bàyyi sa doom yi Njaay foo jëlee info yi kan moo la jaay info yi kan la ana preuve yi. Ndiaye bàyyil waat bi ana preuve yi foo ko jëlee kan la kan ñen la ñen ñoo ñen opposant ñoo financé gaal yi yàqu nga kay hmm? Hmm? Hmm? ay Ndiaye yàqu nga de ay waay Ndiaye yàqu nga ay waay wujj yaay ñe billahi papa Ndiaye yàqu nga Eh, waaye Ndiaye noppi la da nga bëgg xaalis Ndiaye xaalis moo la indi lii lépp ñi ngi dem nag après di sa dina ñëw Dakar sa day nga wax ñu nga nit yi dégg nga da nga mën a duur rek yeeru nga nag yam nga du yàqu nga yàqu gisoo ko gisoo ko dara di nga gën a yàqu danga nga mën duur rek day day waar nañ la yóbbu sa nday dig rek di wax ñan la da nga mënul fan rek da nga day digg Dakar yi Papa Ndiaye yaa day digg Ndakaaru Papa Ndiaye yaa doomeram <laughs> bàyyi leen dul naa li ci ngeen di gaaw di wax di nan ay journal yi <laughs> Papa Ndiaye du nit yàqu na chut kon nag après le 17 on va danañ ñu jox famille Papa Ndiaye yàqu naa waay ñu waajal Papa Ndiaye yóbbu ko cangat ko diw ko lijjanti ko bu mu dellu xelam ba xelam dellu si bu ko mënul après le 17 nag dinañ Dakar ndayam ci moom lañ jëm bu ñu paree ci Macky Sall Dakar ndayam ba mu bolombe ci Papa Ndiaye lañ jëm nag kon nag gars yi fekk leen ma léegi euh, fi nga xam ni moom mooy place des arts qu'on veut devenir un massa pour la manifestation euh, de, de, des Sénégalais. wax waxi dof ñëw gis ab assassin ne kii moo gën ci nit ñi ñu waxati mu ne moom xam na ay nit yi nga xam ne ñoo doon joxe xaalisu cocktail molotov yor na preuve yi ñuy waxati mu ne moom xam na opposition bi yóbbu booy i ci gaal te rek ba waay non bu ko gaaw a dóor xaaral sama sénégalais maa leen ñaan bu leen gaaw a dóorugum Papa Ndiaye ngir yàlla il est atteint mystiquement il est man je pense qu'il est atteint mystiquement papa Ndiaye am na lu ko dugg soit wujju yaay ma ko xërëm mu tàggoog sagom di wax waxi dof soit daa dëgg liggéey jàmboo mais balaa ñoo tegal ndayam nag nañ ko may temps ñu woo ay mbokkam le plus rapidement possible ñu récupérer Papa Ndiaye yóbbu ko ci xàmb yi sang ko liggéey lijjanti ko ba dindi loolu bu ñu ñëwee wax ñun xëy nañ bu topp Papa